wa jaxal kalaami rashidan wa murshida wa fikritan wa qalbi arsida salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen leen jaajëfal bu baax a baax safa ngeen safa di topp seen programme ci ña nekk ci bitim réew la. Ah, ñëw ci bis bi nga xamante ne moom la doon wax mi bis di amal muy fàttali ko gën a si àdduna sëriñ Saliou Mbacke di sangam bu tedd boobu ah ñu fekk fii mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo seq ak moom liggéey bi ngir kat euh, mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo bokk moom liggéey sëñ Tuubaa bi mi nekkoon ca liggéey bi la di ñu toog a jëriñu sëñ Ngañ mi nga xamante ni ko xam-xam ak sëñ Modou Ndiaye jege gu nga jege xam naa dañuy jël moom mu nuyoo mbokki nga xamante ne ñooy seetaan Nouur leen li nga xamante ne moo waral sëñ solo boo xamante ni sëñ bi waxoon na ne bu ñu xëyee dañu fa ñaan jàng 28 kaamil yi nga xamante ni moom lañu wàcc fii ci bis bi waaye bis bi beneen kéemtaan am si muy bis bi bëgg sëñ bi di maam jàpp na ko ci bis bi waaye mu yemook suñ suñ mu taxaw Bachir digle ci ñu wàcce ay kaamil yi nga xamante ni fépp fa Sëriñ Tuubaa nekk ak jotaay yi nga xamante ni moom la mbokk taalibe bi teew na tawfeex yoo xamante ni sotti ñu ci bis bi kon sëñ ngañ ginnaaw ba nga nuyoo mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bàyyi xel liggéey bi ana yéen kàddu nga mën a seede ci bis bi nga xamante ni moom la sëñ Modou Njural li amal ok salaam wa rahmatullah sang bi ñu ngi lay nuyu di nuyu mbooleem mbokk moo xam ne yaa ngi teewlu sunu situ bop bi nga xamne moy nooru daara ni TV di ñaan yalla kon niñ ko ñaané won mbolem télé wala site bu nekk si internet bi yalla na ko dom wane ba mu sut yoy yep ci barke Serigne Salim mbake waaw di sante yalla bu baakha baakha baakha baax di sante yonante bi sallallahu alaihi wasallam di sante sunu jëwriñu bop je sunu jambarja je Cheikh Ahmadou Bamba Khadimul Mustafa di ñaan yàlla yàlla na ñu doon lee fayal sëriñ saalim Mbacke yàlla yàlla nga ñu doon lee fayal sëriñ Salim Mbacke sëriñ Salim Mbacke yàlla na ñu ko yàlla lee fayal. waaw li sabab bis bi da nga ci wax lu am solo te daa mel ni appel bi bu ñu koy def yëgoowu noonu sëñ muntaxaa kon bu ba ban naan ci ndigalam tàggu nan ki nga xam ne buñ ko tàggoo moom du def lu dul ndigalu euh, sëñ Muntaxa muy sëriñ Seex moom sëñ saalim kon. bu dëppook tey mu digle ci alquran te te waxoon ci lan ca def te booba lañ ko digle woon ndax ñii fi toog bëri na ñoo xam ne du ñu lim seen i ndax bu nu tuddee sëriñ Cheikh Ibrahima Amar moom sëñ Aliou Amar nga xam ne ma nga te yor fa daara ma nga woon sa ñàng mi ak sëriñ moor Ñang ma nga njaareem léegi te daaraam ne tuxu Touba yor mu yor daara ju mag si kon nu nu tasaare woon. ak sëriñ Youssoufa Dramé mi ko taxaw woon fii si si si si si Dakaaru ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon alxuraan ji bu dëppook tey sëñ bi digle ko kon day mel ni li sëñ Saliou doon wax daan ne daan ne daan ne ñu digal la nga def de baax na lool waaye xam la la war ne ca daa gën lépp ndax day noppal sa bopp noppal ka la war a digal. bis bi nag euh, sabab bi mooy as gor buñ ko moyee li mu bëgg defal ko li mu ko jomb mënatut a fay kenn lenn lu dul euh, sant ko ndax yàlla sunu borom euh, ba ne sant leen ma. ma dolli leen ko faskuróo nii askurkum waskuróo lii wala takfuroo nii la si teg sëñ Salim Mbacke daan na wax naan asukuru de mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy safaanu kufru kon day mel ni nit ki buy sant rek euh, nekkatul ci ci ci weddi kon koo fekk mu mu nekk si sukkuru rek kon kufru sori na ko loolu li nga siy déggee mooy maag sëñ Modou Ndiaye mi euh, danoo jigante lool li tax ma naan danoo jigante Euh, danoo nekkandoo woon daara ju ñuy wax got ku ne xam na ko ndax sëñ Saali Mbàkke daan nañ ko dàkkantelee borom got ak mbuur got googu nag man fa nekkee sunu waajuru bopp sunu maam soxna sa feetu Fall daan nañ jékki-jékki di waajal ay cant yoo xam ne dañ ko daan def guddi gi di sant Serigne Salim Mbacke maanaam di wax Serigne Salim Mbacke sang bi yàlla na fi yàgg comme ni ko sunu waajur wa daan defee Serigne Cheikh Béthio Thioune am genn gudd goo xam ne da caa yëg lu rëy rëy daan ne lii de saa yoo leen koy defati naa koy yëg di ñu waajal ay beñe di ñu waajal ay meew di ñu waajal ay kafe te booba ñu soxla loolu ab dongo day soxla kefe soxla meew soxla soxla soxla beñe nga xam ne maak sëñ mu njaay mii dañ daan jékki rek ne ko ngoon danoo war a sant daati wax ne soxna sefeetu nanu nan dañuy dem ne ko tey dañuy sant waaye booba fëriñ yombul te xam naa ne dëkk ya jaay xawoon na sori waaye lu mu xat-xat dinañu defaral beñe dinañu defaral meew dinañu defaral kafe kon loolu moo indi lii lépp ñuy dox di dox dox ba jógee fa 92 tuxu euh, njurul sëriñ Saaliw jëlee ñu kot yóbbu ñu njurul mu nekkee njurul maak moom ñu nekk si benn jalum ngooñ di jeexaat gerte fekk sëñ bi séddale woon nañu ay yére yu weex yu rafet sax ay sabadoor sëñ Modou Ndiaye mii daan ne ma sëriñ Ngañ dafa naa sëñ Mor Ñang mi ca la bokk daan ne danoo waroon a sant sëriñ Salim Mbacké waaye waxtaan ba fekk fa sëñ moor waaye ginnaaw ban ko jàppee sëñ moor ñang mii moo ñu ñetteel. ñu jël yéen ba def ko ci daan nekk mboolem koo xam ne dongo boo xam ne sëñ Salim joxoon na la yére na ko sol ku ko solul daal mooy moo moo doo dugg. Eh, kefe gi daal pour nga naan ci tekki ci te booba dongo day bëgg kefe guddi ko ngoon ndax booba suba teel lañ ñu baaxoo xamee kefe. ñu eh, suñu jëwriñ ja fa nekkoon sëriñ Alaaji loo fekkoon mu doon ñaanal waajuram eh, sëriñ moodu loo defe naa mooy tur ba dama ko teewluwul baax mu daal ne ah lii de bu ñu leen ko def sant se kon nan ko tuddee ñaan waajur yi di ko def di ko def di ko def di ko def ba tuxu xel kom di ko def di ko def di ko def ba sëñ Saali Mbàkke ñëw fekk fa ñu jàng fa ñaar fukki kaamil ak juróom benn sëñ bi daan ne man de tey doon naa bëgg a tëj benn kon de naa ko tëj muy ñaar fukk asaxfula ñaar fukki kaamil ak juróom-ñaar sëñ bi daan ne na kon de naa am naa kaamil bu ma doon jàng kon la ca desoon naa ko yeggale te tëj ko tey ah kayit sëñ laaj loo ne ko loolu de taw feex dëgg lay doon mu ne ko kon nu muy doon mu ne ko kon de ñaar fukk ak juróom-ñett sëñ bi ne ko ab lim la te loolu mooy limub Touba kon man daan ne ko na ngeen jàpp ne mandargam jëf ju ñu nangu la daan ne daan ne ku si doon def loo si def sëñ laaj loo ne ko lépp de Mbàkke doy na mu ne ko man de dama ci amoon yéene barkeelu si ndakate booba am na defe naa ñii duñ ma bàyyi ma fen am na taalibe bu ñëw laajte sëñ Salif fu mu ne ñu ne ko xelkom muy dem ba si yoon wi daal di dëppaat daan ne téemaa jëndum nag rey ko toj ko yóbbul ko sëñ Salif ndax ñàkkul dongo yi dinañ ko soxla nga xool jëf jooja la sëñ Salif bëgg te dongo ya ka taalibe ba yëgoo wutoon ne dongo yaa ngay def cant nga xam ne nag ba noonu lañ ko tojee indi ko mu bokk ca loolu am na ca Serigne Modou Ndiaye nag ginnaaw ba bàyyiwu ko daan na def wax bis bi bu ñëwee mu mu mu woo ay mbokkam wala ñenn si dongo yi ko jegee ku mel ni man wala ñeneen tàngali kefeeg meew ak noonu ak togg ab añ wala ab reer bu baax mu ne bisu judd gën si àdduna sëriñ Salim mbàkke bii de laay fàttali ko. loola nag ba bis mu ne sëñ ngañ de lii may def si biir kër gi dama ko bëgg a yaatal ci la woote woote bu rëy bi waaye xam na ne jëf mandargam jëf ju nu nangu ba ko sëñ Saali doon wax naan daan ne lii de mandargam jëf ju nu nangu la kon sëñ jëf ju nu nangu kii na ko ndax am na fi gileem dañ ko koo jox am na fi nag dañ ko koo jox am na fi xar dañ ko ko jox am na fi téeméer ginaar dañ ko koo jox maa ngi koy tooñ sànq naan ko ah kon de bëy day mel ni day day waaj a mu génne lim benn nañ ko dem uti. kon kon loolo la soxna si feetu doon wax naan boo leen di jug na ngeen jug ci lu jar a jug te xam ne da ngeen a nekk kilifa te ju jug lu mat a jug. Euh, naa naa gàttal sax ndax lees mën a wax bëriwul te interview la ñi ci war a mën a wax ñëpp dëgg la waaye la ma waxoon keroog laay fàttali sëñ mu Ndiaye ku ne war naa sant sëñ Saali waaye rawatina moom sëñ Modou Ndiaye ku ne war naa sant sëñ waaye rawatina moom nee naa ko keroog nit koo xam ne mën ngaa taxaw nit seedal la dara si sëñ Saali li mu gis euh, mooy loolu ma doon wax euh, mooy jëkkati nooru daara ni di jàng ba si yàgg waaxu dem jox ko sëñ Saliou sëñ Saliou ibbi ko jàng ko ba pare delloo la ko loolu tamit lu loolu rek daa jar di jàppal bis ak a sant kon sëñ Modou ñu ngi koy ñaan lii muy wootee yàlla bu mu ko mus a wuutee ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Moustapha te ku fi ñëw tey xam nga ne ki mu koy wooteel wuute wu ko muy Serigne Saliou Mbacké ñu ngi ñaan it yiw yuñ si def yàlla na tasaaroo nawet la nu nekk nii tawagul ba tey waaye ñu ngi naan ñaan yàlla yàlla na rus Serigne Saliou Mbacké mii ñuy defal bis mi wàccel nun ndox mu lewete lewete lewete lewete lewete lewete lewet ba képp koo xam ne ji nga benn kemb na ko yàlla waxee si sóoratu baqara ku def benn pepp ma jox la junni pepp yàlla na ko yàlla def ay junni junni pepp tey baykat yi am nu nu génnee asaka am nu nu dundee te nawet bii daal yàlla na fekk ne daa ñëw ngir gàccaal nawet bu fi mës a jaar ñu ngi koy wax ak waxaat di ko ñaanaat waaye daal yàlla moom bu mu xool mukk suñuy rëcc-rëcc yàlla nay xool fa ko sëñ Salim Mbacke tegoon ak fa mu tegoon jaam ñi mu mu mu mu làq ñu foofee te yi woon lépp yëwee na lépp euh, euh, sëñ Lamine Ndiaye nag moo yor kii moom moo lay wax ku nekk euh, ku fi ne ak tur ya moo la koy wax waaye sañ Modou Ndiaye li xam ci moom moom ab émission la mun ñoo wax ci moom lépp yéen di leen sant daal di delloo ñaan gi daal site bi daal yàlla na mel ni si turandoo muy nooru daal rek bi jëf waa koy wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alladi yusalli